ak lépp lu aju ci suñu walu diine ci fi ci école au Sénégal ki fi baaxul rek di ko amal ak yéen di seen mbokk Aïcha Gueye eh, suñu doom ji ñu jàppale eh, sëriñ Adama mi nga xam ne moo ñu jàppale ci wàllu machine bi ba ngeen mën ñu di seetaan ak di mën a jàng ci cours yi ci mbooleem gox yi fasanti koy ci àddina bi ñu eh, ngi koy ñaanal moom itam di leen ñaanal jàmm yéen itam ñu jàpp ci yéen ngeen di ñaanal jàmm fépp fu ngeen mën a toll ñu am yéene dellu siwaat ak yéen euh, mottali euh, lenn ci li ñu tàmbali woon mooy njàngaleem xaj mi nga xam ne ci la ñu nekkoon muy makkatal mu karama nu nekk ci waxtoom nga xam ni euh, njàngaleem alquran mi jàngoon nañu suratul fatiha waaye boole ko jàng mbind mi ak liir bi waaye jàng ko itam nag ci làkk bi ñu dégg muy wolof ñu di ci jema tekki lepp suñu kemtalaayu gantan ba toll ci fiñ ci toll tambali suratu naasi moom itam ba nga xamni ñi ngi ci insha allahu fiñ ci toll su ko defé dañuy wéyal ak yeen jangalem at mi nga xamni dugaloon nañu ko ci biir keroog ba ñu déparé Sénégal ndax waxtaanoon nañ ci ni ko tabaaraka wa moom aj màkk bi mu ne ci alquran wa asin fi nnaasi bil xajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq bi ñu ko suñu boroom tabaaraka wa taala détaillé ci alquran mu leer nañ ci ni man maa digle ñu assi farataal ko ci yéen ci ay waxtu yu ñu xam bi mu ne alxaju ashurun maalumaat fa man farada fiihinna alxajja wala rafasa wala fusuqa wala zidaala fi lxajj at dama ko farataal ci waaye dama ko farataal ci ay weer am na ay weer ak ay waxtu yuñ koy def bu weesee naafila lay doon boo xam ni umra lay tudd waaye mënatul tudd aj ak benn waxtu la ci at mi ndax alquran yàlla du woon na ci di wax ni inna iddata zuhuri indallahi itna ashara shahran fi kitaabillahi yowma xalaqa samawati wal ard boo demee ci euh, taw ba yàlla ngi fa di wax ni euh, li mu weer yi yàlla daf ko tënk ci am at muy fukki weer ak ñaar yoo xam ne mooy at mi mu ne weer ak ñaar yooyu muy at mi nag daf cee am weer woo xam ne dafa tànn ci biir weer wa Euh, ay fan yoo xam ni daf ko def ni ci lañ ci la ñuy acc ci fan yooyu ci la ñuy acc waaye weer yi ñuy umra bari na moo tax mu ne ashurun maalumaatun weer la yu ñu xam yoo xam ne daf ca tënk ak yi daanaka ak umra gi ak gi nag di tekk ci weeru tabaski suñ yegsee fii muntasafi sil qaada wa matdaa isil hijja rek yatawajjahul muslimun min masariqil ardi wa magharibiha ila makkatal mukarrama multaqal xajiiji wa mahbatul waxyi wa manzilu daawa xaytu baytullahi alxaram matafuhum wa safa wal marwa masaahum wa zamsam mashrabuhum wa murtaahum wa arafat mawqifuhum wa mujtamacuhum wa muna marma jimaarihim waliyattaxidu min maqaami ibrahima musalla aj googu nga xam ne sunu boroom daf ko farataal ci nun te itam nag ni yatuuka rijaalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiqin fu ne nit dana fa jóge lu ne nit dana ko war ñëwin wu ne daanu ko ñëw fii ci màkka boo xamee ni mujjentalu diggi tabaski jot na tàmbali weeru tabaski tàmbali muy weeru tabaski ngi jege si mbaa weeru tabaski teru na yàlla nee na fu ne nit ñi ñu fa jóge gox bu ne ci àddina bi te it ñépp ñoo xam ñu gëm yalla dañu gëm ab yonentam alayhi salaatu wassalam taxaw tudd baate sayyidina ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah di taxawé julli su wéru koor ñëwee ku ci sarti koor daje ci yow nga wor su génnee asaka joté ku ci am alal ju mat nisab ak xeeti alal ya muy doon xeeti nisab yi nga génnee ko ñoñu la aj war ci ñoom la yalla waral ci ñoom aj neena nak su boba nak man istataa ilayhi sabilan ko ko man na aj si jaar nañu ci leçon yoyu ba yegg si fii tey ñëw gi ñepp alhamdullilah rabbil alamin ñepp xarmal nañu dugg ci mak ak fu way man harmalé ci ñenti harmalu kay wala harmalu kay yi nga xamni ñoo wër mak nga xamni ku jëm ci ta bëgg aj ngay umra si waroo ko romb te armaloo fa armalukaay yooyu jaaroon nañ ci tudd ko ni leen lama waxata nabii sallallahu alayhi wa sallam haasihi l miqaat qaala qaala hunna la hunna wa liman ata alayhinna min xayri ahlihinna mimman arada al hajja wal umra miqa yii nag kenn amul droit romb ko képp ku jëm si màkkate bëgg aj si wala nga bëgg umra si amoo droit romb miqa yii te armaloo fa ñun wa sénégal suñu borom dimbalé won ñu ñuy romb mi xam madina fa yunus bi sallallahu alayhi wasallam armalé won muy biiru ali ñen ñi di ko wax abiyaru ali ñen ñi di ko wax sil xulayfa ñetti tour yooyu yëpp am ko ndax am maanaa guma ma am maanaa sénégal nak yalla dimbali len bali ëpp ci ndax bu fekke ni amna ñeneen ño xamni ba légui demaguñu ba normalement tay ji lañu wara dem ndax lu gatt gatt suba war nañu taxaw yu arafa wala ñoo xarmal tey dugg màkka def tawaaf dem daw safa ak marwa naan sam-sam dal di daw fekk waa munaa ca munaa nag yenn fa ak ñoom tey jii ci bisu juróom ñetteelu fan bi moom munaa waru leen a rëcc mooy bisu juróom ñetteelu fan ci weeru tabaski di bisu altine bii bisu juróom ñetteelu fan boobu waruloo rëcc kenn koo xam ne am nga yéeney dem xaji moo tax kon gépp koo xam ni desoon nga fi sax nag mbaa nga am yoon wu jampa jampa jamp wala yàlla dimbali la ci occasion boo xam ne yow mën nga ni bërit daal di jóg dem macha allah war waa yomb la nga mën a dem wàcc jidde kooku tey du mën a xarmali ji ci biiru àll kon kooku fu muy xarmale ji kooku Sénégal gii bu dee ni Sénégal la jóge bu dee ni meneen réew la jóge dafay sangu sol yére xarmalam ne ci avion bi ba jege euh, benn miixa ci miixa yi maanaam tey Eh, bu fekkee di Sénégal la jóge jël avion ma joxe misaal bi gën a jege gën a gàtt su suñu ñu ko nee romb nga Égypte rek yegg si mbaa tiim nga Égypte mu xam ne lee mu romb Égypte yegg ca mi xam waa Égypte rek war na dal di xarmal ndax eh, jàngale woon nañu ko ci leçon yi passé ni sunu kilifa yi amoon nay jamono bi nga xamee ni eh, avion yëpp jidda lañ doon wàcc ñu dugg ci ay oto jaari Médine sa yo xamé né xatna bañu tejj yoonu medine woowu dañuy wax ni tejj nañu yoonu medine ku bëgg siyaaratu medine gënaaw ak gi ngay mëna dem kon nak di len harmal Sénégal gi doora dem Manam di len solé sen harmal fi ci Sénégal sango fi solo fi eh, sol eh, dugg ci avion bi so yeggé nak ba ñu ni la yaa ngi tiim Égypte eh, nangami kilomètre la avion bi nekk ci kaw nangam nangam su baba nak dal di jóg préparer nga dal di harmal moy harmal gi bu tombe waxtu julli fa lillahi alhamdu nga julli sa waxtu julli selmal selmal daldi yene harmal yene xetu ak gi nga yene waye loolu yeb alhamdulilahi rabbil alamin romb nan ko tay lu may ay exception ñu néew a neew a ñoo fi dess waye ñoo ñu dess itam kasaalika bu mënu ñu jaari Médine di di di di ba armal ci biiru ali ndax xatna gidde rek la len avion bi nara wacce su boobaa dañuy armale réew mu ñu mën a jóge mu ne ndax ji la du miix fu ñu mën a jóge fu nekk fa la ñuy sole seen xarmal jël avion bi bu ñu demee ba jege ca miixam réew ma nga xam ne mooy miixam gën a jege euh, réew ma gën a jege màkka miixam ñu dem ma foofa miixam ma ñu jóge côté ba ñu jóge euh, miixam mu mu jege bu ñu demee ba jegee ko rek ñu daal di xarmal gaaw bala ñu koy romb loolu mooy seen ab àtte léegi nag kon ñëpp dugg si nañu màkka guddig bik de biñu yandu besu juroom ñaarelu ñaareelu fan fanaan guddig juroom ñettelu fan ñepp fanaan nañu mëna ñi nga xam ne eh, nañu te yoon wi maye na ko ñi yoon wi xatoon ba tay ci suba ñi yegg mëna ci besu altini ji falilahi alhamdu mëna lañu yendu di tuddu yalla di zikr, di def istighfar salatu ala nabi ma sha allah ba jant bi bu jant bi soye tay ci bisu altine bi, lu ñuy def danañu daal di taxawal kari yi ne ay ci len nak lañu dem arafat tay ji mom fi la ñuy ci muna waye nak bu ñu ba pare commencé nañu dem commencé nañu dem ndax bëgguñu yoon wi adina bépp ci yoon wo la ñuy jaar ñépp danañu jóge muna ndax ñepp ñew muna ndax muna gi tay li moy santane yalla yendu bisu altini bi ci muna lañu yalla bu ñu fa bu ñu fa yendoo ba ngoon ñu départ commencé di dem ndax xat na xataay bu toll ni ñun ñëpp bu ñu fa fanaanee jëmale ko suba naan suba mooy bésu arafaat bi suba lañ nu sant dem gi du sotti ndax ñépp a ngi munaa munaa gu yaatu googu munaa googu nga xam ni danga koy seen ay xeer yi kese ngay seen munaa googu nga xam ne at mu nekk nit ñi yokk waaye kenn gisagul fu ñu yokku munaa loolu may di gën a xeet xeer yi rek macha allah. xeer yu naqari woon a yéeg ñu fexe ba mu ratax defar ko maasale ko ba mu kaare ñu def teg fa xayma ñi am am ci suuf am ci kaw am macha allah ñu defal euh, place yoo xam ni tali karo yi pavas yoo xam ni macha allah lu nekkoon xeer yuy dagg nit ñeek di leen sonal ak di naqadee jaar yëpp defar nañu ko macha allah mu ratax ren nag ñu dolliwaat ci nag macha allah defaraat defaraat tant yi. Defarat xayma yi ba nga xamni lu doon moket yu bax lal nañu ko fa lu doon kay yu bax tak nañu ko fa lu doon kay yu bax rabbil alamin muna gogu di di di di di fàttaliwukaayu bàmmeel yi ndax kenn ku nek sa mer gaddu gogu nga fa am te lolo nga fa xaj non la ñuy place yi wàññi nit ñi kenn ku nek teud yam fi nga yam kenn ku ne sa morom nga jegee ko ni mel ni rek bamél yu wul non ndaysan ñepp tëdd ñay rek ku nekk rek tëraayu bamél nga fa am sa benn mer gattu boobu waye tay kon mina muna gogu ñuy yendu ñu diko wax minan yendu fa di sikkar istighfar yendu fa di salatu ala nabi ba départ nak guddigi nit ñi dañuy commencé di dem di dem di dem di dem di dem di dem ba fajar amna bes yu nga xamni de eh, yegg nañu muna yegg nañu arafaat lu jiitu jant bi fenk waaye li ëpp ci bis yi nga xam ni daal eh, man teewe naa ko mooy julli nañu fajar ba noppi ba jant bi di fenk nu door a yegg si arafaat am na ñoo xam ne nag danañ toog nañu mun a ba jant bi fenke leen fa ñoom tam seen tour door a jot ñu door seen kaar door a départ ñu door a ñëw suba teel ma ñoom itam macha allah fekk yoon wi xaw a tuuti xaw a libre ñu daal di ñëw ñoom itam arafaat waaye kon muy suba talata insha allah mardi bi nga xamni moy mooy yow mu arafa mardi bobu nga xamni warna ci kep ku nek ci adina bi tey te sunu borom jox la kantan sarti koor sa ci yow nga meuna wor war war Subak gor lu jema wor suba ci talata ji nun fi ci senegal muy yow mu arafa waye ak wa France waye ak wa amerique ak wa Chine benn bés la ci at mi mu yow mu arafa képp koo xam ni talaata ji jot si na ci yow fekk la ngay nekk ci ab jant war ngaa wor képp ku talaata ji fekk ci ab jant war ngaa wor ci jant boobu la nga am ca bëccëg ba ndax waxtu yu tolloowul waxtu yi rawante na ñu ñii ni ñu rawanteek màkk noonu la màkk rawante ak Chine ndax su ma la nee lool la rawante ak Chine ku ne xam na ne màkkaa ngi ci digg àddina bi jóge nga fii jël avion dem ba dem ba jidda def nga ci yoon wi lu mat 9 euh, de temps yoo xam ni euh, juróom-ñeenti waxtu avion bi daw na ko bu jaww ji neexee dëkk boo fekkee am na ay euh, yu xaw a kii gàllankoor da nga def lu mat fukki waxtu ci yoon wi waaye naka noonu boo départ woon jidda tey jëm Chine dinga def fukki waxtu ci yoon wi lu mu néew néew néew di nga def fukki waxtu ci yoon wi moo tax ni nu wuuteeg ñoom li nu rawanteeg ñoom kee day rawanteeg ñoom ñaar ca ndax jant bi moom ma nga fa mu nekk wa shamsu tajri li mustaqarin laha dalika taqdirul azizil alim kon su may wax ni yow mu arafa benn bés la ci at mi benn bés la ci àddina bi yépp mooy képp koo xam ne li nga am ci talaata yi bésu talata suba bi insha allah la nga ci am ci ab bëccëg lola ngay wor ndax amna gaay ñu nga xamni seeni bëccëg ak seeni guddi mu la suñu bëccëg ak suñu guddi suma ko waxe dekk bo xamni da nga tok ñetti weer do gis jant bi xam nga koku yaangi ci guddi toujours ak dekk bo xamne man nga fa tok ñetti weer daanaka do gis jant bi so toujours ya ngi jant bi xam nga kooku pour nga lijeenti fa becc ak leneen la waye diiné moy li bawul dara alquran moy li bawul dara gis nga dekk bi len gëna jégé ta jant ba di fa joxe guddi ak bëccëg ñu yemoo wala ñu rawante ay ay ay ay ay ay waxtu yu neew ci dekk bobu lañuy calculer sen bop ci dekk bobu lañuy calculer sen bop ni ah ñun kat Sénégal ndikété waxtu yi nu nek jamono yi nu nekk suñu trois mois yi jant bi du fi so danaan fàng rek kon nun ban dëkk la ñuy xool bu nu gën a jege boo xam ne jant baa nga fay sox daanaka mën na nekk Mauritanie mën na nekk Maroc mën na nekk ba Espagne ñu ne ah dëkk boobu nag kon mënu gën a jege ginnaaw mënu gën a jege Amérique bu nu calculer suñu bopp ci Amérique nan xool ci Espagne ñu nu gën a jege te jant ba di fa sox ak di fa fenk ñaata waxtu la fay am ci bëccëg bi ak ñaata waxtu la ci guddi gi ci waxtu yooyu mu fay am ci bëccëg bi foofu ngay calculer sa koor yow mi nga xane ne ya nek fi jant bi dul soye wala nga nek fi jant bi dul fenke dëkk bi la gëna jégué jege bi la gëna jégué ci ngay calculer wu ci loolu la la diine ni yow ci loolu ngay wàññi sa becc ci loolu ngay wàññi say becc ak say guddii di wor becc ak ye ya. motax suma ne talata ji ni adina bepp la moy kep ko xamni eh, besu talata bi fekk na la yow eh, sarti koor sa ci yow le gën ci yow te dig tànneef moy nga wor ko mu yow mu araf te yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax ci lu am doole neena kep ko xamni taxawi wa arafa war nga ko wor nang ko wor ngeenel la li gën ba sunna mu akkada la di sunna buñu feddeli ndax borom bi tabaaraku wa taala mo addu ci alquran ni wal fajri maa ngi giñ ci fajar mi ngi giñ ci fajar waaye mu tekke ni wala yàlla na asrin ak fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski nag ci la nu nekk te talaata ji di ñëw di suba mooy juróom-ñeenteelu fan ba ca màkkatal mukarama ñu di ko taxaw arafa ku mu nekk ci yow juróom-ñeent fa lilaay alhamdu ku gisul woon weer wi ba yow nattuloo ko ci juróom-ñeent juróom-ñett nga ci am itam yow booye boo rek nga woor ko ndax yow mu arafa ba tax nga di ko woor ak di ko barkeeloo yow mu arafa ba suba ak jàmm la incha allah suba lañ koy taxawee kon yow bu fekkee da ngaa yéex a gis weer week bu fekkee li kulli baladin ruya euh, réew mu nekk mbaa gox bu nekk ak seenub gis ci weer wi ci loolu nga calculé wu it falilaay alhamdu waaye suba daal mooy yow mu arafa ku ko mën nga góor ba woor ko ndax wala yaa dina fukki guddi yu njëkk yi ci weeru tabaski ci lañu nekk. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xayrun min ayaami dunia yàlla nee na ko moo ma gënal ci mboolem bési àddina yi bés yi ci àddina bési moo gën ci bési àddina yi moom fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski kon weeru koor li muy foor kon bési koor li muy foor foor bési bési fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski moo ko gën a foor ndax yàlla nee na moo ko gën xayrun min ayaami dunia Euh, bési bési fukki fan yi jëkk nii ci weeru tabaski nee moo gën ci fani àddina yi jaaratu kër ba sonn doo fay waaye nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi mu gën a la sur écolo Sénégal peux facilement avoir accès à école au Sénégal